na waaxoog daagu yamee fa yallaaxu ndax àgg nii la coppet ak jiiroo yamee fa yallaaw ndax jeex turbine yéen ne ma ngato la ngatos bennoo bokk yaakaar la day ma ngay jeex ndax ayu président Macky Sall moo ko waraloon sàll tegal gato nag ay alliéem ñuy coppati ñeneen ñi di tibb ñeneen ñi di jiiroo waaye jeex rek yéen kaay dee média bi naan maan jeex na ba tos bennoo bokk yaakaar a ngay rang-rangal di wii jooka baggeeju yéen kaay bi naan maan mënta ñàkk nag ñenn ñoo xam ni faaw nu cëppeelu fa yallaaxu parti socialiste ak AFP moom bato li ci boppam dan caa la ngaamu ba batoraa ngay suux nu ñuy def yéen kaay bi dee média bi ne ma tëb tribune yéen kaay naan maan waa parti socialiste ak AFP man ni la ñooy tëb fa yàllaaxu ci batool Benno Bokk Yaakaar gi ndax nag yóbbaale ma gi nga xam ne dañ koo dëkkee fi ne dañ cee taay yi dañ cee sonn bàyyee président Macky Sall nag ak ca gël gu yam waaye bàyyee ko nag ak kub tabam l'observateur naan maan tabb gaa nar a metti wala sursu a naan kon déet may ma ma ñëw ndax nag laataa ngay yegg ca tabb gi ñu yegg nag ci président Macky Sall laataa muy jébbal lànk yi xam dëgg-dëgg xar kanamu gaam yi ndax nag am na ñoo xam ne moom sàll ba mu nee pare naa ci mbir yi la ñu pare ci moom xam nga Sénégal ndeke ay nit yu dans raffiné yéene kaay bi naan man tey laa lay xamal nu mbir yi demee Benno Bokk Yaakaar man la juróom-ñett fukk ak ñaar ci député la am président Macky Sall woo leen ca pale ba ne leen damaa bëgg wax ak yéen nag ca kamay tabb ngir mu wutuma juróom-ñaar fukk ak juróom-ñett ci député ñoo fa ñëw yu Benno Bokk Yaakaar ñoom ñëpp nag Sall tegal leen xeetu contrat ne leen xaatim leen ngir wax ne mu wutuma da ngeen ci ànd ak moom yéen kaay bi ne ma député mi yëpp signé nañ de waaye ka nga xam ni moo fa toogal Papa Diop bu bokk gis-gis moom dafa signé sous réserve ndax nee na day jokkoo ak Pape Diop ba nuppi ka fa toogal Youssou Ndour fekkee ma ci boole moom it nee na dafa signé sous réserve maanaam daal gëmm di door gi ànd ak Macky lu mu wax nga ne waaw ma ngi ñàkk ci réew mi yéen kaay bi ne ma te jeexagul ndax nag am nay député yoo xam ne danoo jooy ma ne la ci kanamu président Macky ndax nag naan koon Sall dimbali nu assemblée nationale bi bul ko sayal ndax nag dañoo dem ci banque jagat jagat teefale bi xaalis banque yooyu yee suñu leb gi 2027 lay jeex soo seelee assemblée nationale bi sàll ngaari di ñu bàyyee ak banque yi ñu mbugal nu daanaka daal warax lan ñuy def 24 heures yéen kaay naan man député wi ña ngay sàkku ma la ñu bàyyi Biram Souleye Diop nu mu gën a gaawee ndaxte goom gii tegul ci yoon yéen kaay bi naan maan waxtu woowu fi ne day ay candidat nag ñi ngi tiit bay raf ndax nag loo ci mënti dégg politique u Sénégal dafa daal soppeeku le mandat naan kon ay yi nga xam ne yu système bi lan muy Idrissa Seck Khalifa Ababacar Sall Karim sa Wade soo moytuwul day sénégalais yi ñoo leen di wan ginnaaw fayallaahu ndax nag askan wi ci boppam képp koo xam ni nekkoon nga ci système baa nga liggéey ci système dafa mel ni faxas nan la ci seen gëm-gëm ak seen bëgg-bëgg de le mandat ne ko mooy la ma lay wax Ousmane Sonko ak Bougane Gueye Dany de ñooñu tàqaleeg socialisme ak libéralisme ba nga xam ne daanaka dañoo bokkoon ci ñi nga xam ne dañu doon noot ñoom Senghor Abdou Diouf ba ci maître Abdoulaye Wade jëlee woon ko bitim réew forcé ñu ko nag ñun yeneen réewum Sénégal ñu koy doxal ñaari courant nekk ci réew mi di lëmbe Sonko ñëw wooteeg Pastef Bougane Gueye Dany ñëw woote gëm sa bopp ñoom ñaari leader yi mani la woote anti système goo xam ne ndaw yi ci boppam dañoo daw daal di leen cay fekk Bougane naan leen nan gëm ni sénégalais bu bees mën naa am ci réew mi sénégalais boo xam ne ñemagun ko waaye bu ngeen ko ñemee xam ne Sénégal daal mën naa tabaxal boppam sénégalais boo xam ne ci jëmmam la koy defaree ak nam ko bëgg waaye tam la nga xam ne sunu maam bàyyiloon nañ ko fi muy jom ngor fu la fayda ak gëm sa bopp yi nag ci gëm sa bopp muy firndeel ni ndawuk Afrique ak ndawuk Sénégal mën nañoo suqali seenu gox ba ñu moomee suñu bopp ak tey ñun dénduk Afrique ña nga xam ne ñoo ñu jiite lenn daal lan nu fi bàyyil muy ndóol ak ñàkkum xëy goo xam ne ndaw yaa ngi ciy dund bàyyee ñu ay scandale yoo xam ne mi ngi mel ni tulleeg maale socialisme ak libéralisme bàyyee ñu ay coow ak i jafe-jafe ci réew mi fii ci Sénégal nga jaagar jaagari dugg ba Mali wala ba Burkina Faso wala sax Tchad xale yi Afrique di yeewu moom Ousmane ci boppam bokk ci leen leen mën nañ caa génnal suñu bopp su nekkee ñun ci boppam ñoo xool système bi baaxul ñu daal di koy faxas jàll ci feneen moo taxit lu ne ma ngi koy dund ci réew mi moom Sonko salafisme ma ngi koy dégg islam radical ma ngi koy dégg terroriste sax Ousmane Sonko ma ngi koy dégg ña ngi koy ji naan kon day manipuler ndaw yi moom Ousmane Sonko bugaan gay ni may woote ñuy soppi ñi bokk ci système bi mu ngi dund daanaka jaxaan na ma ci réew mi gannaaw ba mu génnee ci ñaareelu place bi ci élection locale yi wàllu fisc fas loo xam ne am amam la mu daal humilier jël lu ñaaw teg ci deram bi mi ngi koy dund moom Bougane gay Dany moo ne day ñaar ñi li ñu def tey ba am jafe-jafe ci réew mi mooy lenn daal di woo ndaw yi nag ci ñu am yaakaar ci seen bopp am yaakaar ci ëllëg goo xam ni ñoo koy defaral seen bopp l'observateur naan maan boobu président Macky Sall ma ngay wër candidat am candidat boo xam ne day mën naa ànd jafe-jafe ci biir bennoo à tout moment ko di naan kon boo moytul kay dañ koy joxañal moom Sall daal di kupp le témoin yéene kaay ne moom président Macky Sall bu tasee carte gi ba noppi loolee day mën naa caxat caxatee bennoo bokk yaakaar waaye itam tas partem bii di APR fa yàllaahu turbine yéene kaay naan man beneen candidat ngi nii di wuyoo ci turu Anta Babacar ngoom Dia turbine naan man bokk na ci ñi nga xam ne samp nañ seen dënd ngir bokk ci élection présidentielle yi moom Anta Babacar ngoom naan duma kandidaa boo xam ne damay ñëw nag ngir def wala it jooyanti taf yëngal xoolaat la fi nekkoon ma koy jéem a yokk déedéet dama ñëw nag ngir jox ku ne tural jébbal sénégalais bu neppeel ak marto ñu fas yéene nag tabaxaat Sénégal tegu projet boo xam ne ñooy xàcceendoo dóorandoo tabaxandoo Sénégal bu ëllëg boo xam ne bu ñu gëstoo daal di koy xool ku ne xam ne sab doolee nga ca ku ne xam ne Sénégal fa mu egg tey bokk naa ci ñu ko yóbbu Sénégal goo xam ne day roñ roñu jëm kanam kay du am tànk ginnaaw Anta Babacar ngoom ak mouvement alternative citoyenne naan ci kaay bi Sénégal lan goo xam ne Cheikh Ahmadou Bamba am nañ ko am nañ Cheikh Omar Foutiyou Tall Sénégal am nañ Sidi Hadj Malick am nan Maulana Cheikh Ibrahima Niass am Seydina Limamou Laye Al Mahdi am Hyacinthe am Yacine Boubou ak Aline Sitoé Diatta kon lu ñuy ragal Sénégal nañu gëm suñu bopp te liggéey te liggéey bi nag Sénégal ñun ñëpp ñoo cay ànd liggéey l'évidence yéene kaay naan man mbaa bu ñii di gas ñii di suul réew mi dina dem ndax nag duudu ka ci boppam ña ngi koy tuumaal ay sabotage ci aéroport international Blaise Diagne turbine yéene kaay naan kon boobu Sénégal a ngi ni xuusa ki problème mbënd ak ñuy tàmbali sonal président Macky Sall wootee ci conseil interministériel boo xam ne ndax dinañu jarin dara yéene kaay bi dee média bi naan man tàngaay xoj sénégalais yi boobu ay ndaw yi ñàkk yaakaar réew naan kon nguurug Sénégal day ma ngay weddi ay Tall sàll ma ngay weddi waaye waa Espagne ci boppam ña ngay gën di wax ni sénégalais yi ni la ñetti bato yu doomu réewum Sénégal bàyyeekoo na Kafountine yeboon ñetti téeméer ci màngaankat daal nay réer ci naan leen werante bi kay jaru ko wër leen seen doomi réew yi nga xam ne ñi ngi réer ci géej gi moo gën libération yéene kaay naan man ma ne la barza wala barzaq gi xale yaa ngi cay dem ci ndar giire ab gaal gu doon dem barsa moo am jafe-jafey daal di këpp juróom fukk ak benn ci màngaankat a ca nekkoon ñeent ci boppam lañ ca sowe juróom benn ci néew daal di teer ñetta des kenn gisagu leen baabu seen consul général ca dax la ni àllarba ji rek ñeent fukk ak juróom ñett ci màngaankat bàyyeekoo Saint-Louis téye nañ leen ca dax la bokkut ak ñaari téeméer ak juróom benn yi nga xam ne war nañ leen rapatrier daar daar ñu nibbi ci réew mi l'observateur naan ku ne barsaak barzaq gi amul ci réew mi yaa ngi juum lu toll ci junni ci doomu Sénégal dugg nañ Espagne at gii lu toll ci ñetti téeméer ak juróom ci sénégalais jàpp nañ leen wàññe leen lu toll ci ñeent fukk ak juróom ñoo xam ne leen yóbbu yóbbuwaate yóbbu nañ leen kaso ñaari junni ci ñoo xam ne tegoon nañ projet Barça wala Barzak tasaare nañ dem googee ba mujjta antu tribune yéen kaay naan benn laaj rek laay samp mooy te gouvernement gu Sénégal ci xale yi tey la seen bakkan ci géej gi lan la ak lu mën a am mbokk yi ñuy ñaan jàmm te yendoog jàmm seen adresse ak seen national est-ce que euh, quand même nga mën a toog di naan da ngay démentir di naan ay sénégalais nañu du ñu sénégalais. xam nga Aïssata Tall Sall mi yor ministère boobu. dafa topp Sonko troisième mandat bi ba la mu waroon liggéey mu fàtte ko. yow lii nga wax nii du vingt neuf au lan au au vingt huit au neuf. nga ne Chaloup en détresse loolu soo ko waxee ba pare danga nga ñuy wax Sénégal yan jumtukaay la jël pour sauver ñooñu nekk en détresse wala yow léegi comme man mii rek nga xamante ne nii mun naa jot benn information ma ñaxtu ko rek mu jeex responsabilité état ça vaut au-delà de ça yow boo nekkee ministre des affaires étrangères nga ne signalé nañu la déjà loolu sax c'est lu signalé nañu ma du 28 au 9 loolu kenn munu ko dégg yow koy da nga naan signale nañu ma bis tel ne ma depuis tel jour ak tell jour gis nañu ab chaloupe boo xamante ni njort nañ ay sénégalais ñoo ci nekk mais chaloupe boobu dafa am problème mu ngi ci biir géej gi. loolu mooy waxu responsable ba pare nga teg ci ne Sénégal jël na matukaay yii pour ñooñu nga xamante ni ñu ngi ci géej gi nekk en détresse ñu sauver leen. mais léegi yow des sénégalais sont en détresse léegi yow espagnol yi ngay xaar wala marocains yi pour ñu sauver leen. moo tax may la ay stat xam nga Macky Sall dafay teg équipe euh, gouvernement ñu ne un gouvernement de combat. ñi ñi naan ay combat pour jafe-jafe sénégalais yi leen combat face à Sonko mais ñoom boo xoolee seen dossier yëpp pratiquement la ca xew yëguñu ko jusqu'à ce que quelque part jëyee ju toll nii am nga xamante ne nii euh, euh, état du Sénégal mënul ñàkk communiquer parce que bu demee ba nga xamante ne nii euh, presse internationale bi commencé na cee wax. nit ñi di naan trois cents sénégalais disparus. ba ku mel ni Ousmane Sonko commencé relayer information boobu. gouvernement bi munu toog ne pat pataaral. da nga jàpp ni réaction bi par rapport ak poste bu Ousmane Sonko. def mais mais bien sûr. parce que avant Ousmane Sonko di def poste am bi ñu bëri jënd nañu ne gouvernement Sénégal la lay xaar. poste Ousmane Sonko boobu mu jiitu ko. média inter yenn média internationaux yi commencé cee wax. des centaines de Sénégalais en détresse mais forcément gouvernement Sénégal.